aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu waa seen info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci journal bu am solo bi nga xam ne moom ngeen baaxoo di ko def bi màggali tàmbalee ba léegi di ko ànd ak ñun euh, di leen nuyu bu baax a baax di nuyu de passage seen euh, mbokk suñu mbokk aussi euh, Mouhamed Mountakha bi nga xam ne moom tamit macha allah mu ngi ci liggéey bi nekk bitim réew di ko yaatal ñu ngi leen di nuyu lu bëri bëri bëri bëri di leen wax dal leen ak jàmm vraiment kontaan nañ bu baax a ci yéen ak seen liggéey ak seen kon ñu continuer bu baax a baax ci liggéey bi ak suñu mbokk ak suñu waajur euh, Baye Sanno Dramé bi nga xam ne dafa jóge ba Saalum ñëw fii ci màggal gi ñëw fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne mooy Forever Aloe Vera bi nga xam ne depuis màggal gi commencé ba léegi ñu ngi fi ñëw fii Touba ngir indi fi benn stand pour waxtaan ak nit ñi pour mën a yaatal liggéey bi kon bu ko defee incha allahu rabi bu ñu la nuyoo Baye ba noppi ñu ngi lay jox kàddu gi la wax nga baaxee ñu tuuti rek ci sa histoire ak Forever ak Aloe euh, moo tax tey jii ñu ne ñu dalal la waxtaan ceeg yow incha allah bisimilah sëñ bi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ok ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla bu baax nag ci teewe gi nga xam ne teewee nañ ko ci bis bi ci bisu màggal bi. di sant yàlla bu baax nag di di yëgal ñépp ne leen koo dégg muy wax ca foore ba daal boo ko dégloo dina la amoon njëriñ lool njëriñ lu yaatu loo xam ne. nit mën naa xam tàmbali bi waaye fan la yem moom amul dañ wax ne ko nit li ñuy wax ne képp koo xam ne dangaa feebar de te sa xel mi dajut nga toog ci ñaan ci yàlla feebar bi lu koy saafara mu ngi mel ni nga jox gannaaw foore ba boo ku ci waxtaan doo ko dégg man ci jamono bu yàgg ba amoon naa benn waay benn sa benn ku ñuy wax sekk mu nekkoon Dakar opéré nañ ko juróom-ñaari yoon sept opération def na ko ma ñëw di wax ak moom nag di wax a wax a wax a wax ba suma waxukaay jeex mu génne cinq jox ma ma ne ko waaw lii nag mu ne ma Dramé daal man lépp loo xam ne benn médecin waxut ma ko daal du ma jëfandikoo loolu te ma gis nga sonn ci wax ji lool loolu tax ma jox la cinq bi ma ne ko ndeke yow ba ma toogee fii di wax ba léegi li may wax yow déggoo ci dara ndax foo gisagum ku sarse banaana wala mu sarse mango di wut autorisation bu mooy fu mooy jaayee ji mango ji ndax gisagoo loolu ma ne ko moo garab yi nag ñoo am buñ ko tuddee buñ mënuñoo ñàkk a tudd ne garab la ndax luy saafara rek garab lañ koy tuddee waaye wax gi nga koy wax nag taxul nga nekk médecin waaye lii nga xam ne maa ngi la ko ciy wax ci affaire bi ni ma ko waxee nii noonu la affaire bi demee am na ci loo xam ne sax yow da nga koy wax ba pare ki nga ko waxal dégg ko. waxal la ci loo xam ne yow mi ko amee da ko jëfandikoo sax xamoo xamoo ko ci yi nga xam ne nag moom laa gën a xam ci garab yi nag nga xam ne moom mooy pâte dentifrice bii daal xam naa ne ñu koy tuddee baraayit lépp loo xam ne daay metti ci bopp walla bët mbaa porox mbaa rëq-rëq yëpp da koy faj émori sax da koy faj ci so ci comme si ci ci ni ma koy waxee maanaam bu fekkee ne da nga ko amee muy nekk émérite boo xam ne dafa génn ci suuf soo toogee ba nga xam ne yaa ngi tëdd rek nga diw ko foofu insa arab bi mën naa jël affaire bi xelli ko ba ba ba dootoo yëkkati ne sax yaa ngi ko amee boobu nag nekk na nekk na feebar boo xam ne dana lafañloo nit dana gumbaloo nit dana dofloo nit yooyu nag maanaam ci rey nit ci la bokk yi ñu wax noonu maanaam bu gumbo ak euh, euh, gumbaloo nit ak lafañloo nit euh, yëpp da koy def maanaam nga xam ne dangay dem ba mu yàgg mu jàpp la sa bët yi boo sëggee doo doo gis te muy feebar boo xam ne bu garaaw la waaye nag bëri garab lool def na ko waaye garab bi ma ci gën a xam daal mooy pilpa bi ak braayit bi loolu yooyu daal moom xam naa ko ci mu nekk yoo xam ne moom li ma ci gis moom wóolu naa ko lool lool yeneen yi nga xam ne tudduma ko itam nag xañ na noonu la mel yeneen yi nga xam ne mooy ay tànk yuy métti ay xam nan lañ koy waxee ci tubaab ah non non articulation euh, nuñ koy waxee maanaam comme sofe sofe waa artical articulation maanaam yooyu yooyu itam soo jaxasoo ñi nga xam ne ñu ngi ci waxtaan nga déglu leen bu baax a baax danga ci gis saafara boo xam ne man nag yàgg naa ci affaire boobu lool soo euh, soxna maam bu sa daf ma daan wax ne ma yow maanaam affaire bi bu fekkoon ni defula ko muy kuy baana baana waaye nit ku nekk dafa xam loo xam ne loo la mënee te xóolu ko loolu rek ci la ci la mën a nekk maanaam dañu wax ne kuy jàng sax su demee ba joxe dépasse war ko du la doon bëgg jàng yëpp dootu ko jàngati maanaam fu mu amee dépasse rek foofu laay foofu laay wër moo tax affaire yi baana baana bi ma ne pour maanaam nga nga nga nga nga mucc ci baana baana bi du yomb waaye tax na itam ba fi mu fi mu toll nii heure bu ne fu nekk téléphone mu ma faa jóge koo naan damaa soxla nangam léegi damay toog ba xam ne euh, gis naa ñu bëri ñoo xam ne dañ commandé nangam lañ bëgg ma dogoon ñëw Kaolack wala ma o maam bu sa mu jël bagage yi tegal ma ko ci oto horaire yi mu indil indil ma ko foofu jàngal na ma ci ba ma xam damay toog su ma néeg képp ku ñëw foofu foofu nga may fekk ci néeg bi ma nekk la wax ma yi nga bëggoon ma wax la bis boo xam ne insa ara bi euh, boo ñëwee da nga fi fekk bagage yooyu du ma génn sax pour dem di wëri di di ko di ko jaay moo tax ma ne sant naa ci yàlla bu baax a baax tax na itam ma am lu ma xam loo xam ne bi bi ma nekk gut ci Alivera bi xaw ma ko ndax Mame Bousso ànd naa fee moom ba Tamba Tamba ànd nañ benn voyage boo xam ne ba ànd nañ dem ba dem ba Tamba dellu retourné waat ñëw nañ itam ci fi nga xam ne fi laa dëkk ma ànd ak moom foofu defal na ma fa lu rëy loo xam ne ñëw ba agsi indi garab yi toog lépp lu lépp loo xam ne jaay nañ ko rek bénéfice bi man la yëkkati bénéfice bi jox ma ko ma ne loolu nag ndimbal lu rëy la loo xam ne ah mbërki démb damaa dajeek dama ne Mame Bousso de laa bëgg seeti am ku ma wax ne ma ah Mame Bousso waaye Mame so fa jar ngay départ fii de dem lool Mame Bousso amul njëriñ ma ne ko dee loolu moom man de du ma ko déggee dama laay wax ne loolu moom man xawma ko ci moom li ma xam daal ku am njëriñ la te du du dugg ci du dugal kenn ci lu ko amalul njëriñ dañ wax ne ne àdduna bi moom boo ci nekkee yi nga xam ne moom war nga leen a moytu bu baax a baax mooy noonu ba muusa xarit bu dof xarit bu dof lu mu dugg rek. dafay bëgg nga dugg ci te du dugg te du dugg ci loo xam ne am na njëriñ mm-hmm. noon ba muus nag foo ko seen moom dalay dalay réyal ngay gis bañam yi te ndigam sagoom balaa jant bee soog kenn dootul la gis mu ne ñaar yooyu yàlla nañ ci yàlla musal xarit ba dof ak noon bu muus kon xam naa wax ji mënoon naay romb foofu waaye yaakaar naa ne ñu bokk ñun ñëpp sant yàlla di ñaan borom seen bii daal yàlla gën koy dimbali yàlla bàyyi ñoo moom mm-hmm. maye fan wu mm-hmm. ak wér gu yaram barke bi yonent yàlla Muhammad ñu ngi koy ñaanal daal ndimbalal yàlla yàlla nañ dajeek moom ngërëmal yàlla yàlla nañ dajeek moom baas bi nga xam ne ci lañ ko euh, ci lañ ko affecté mu jàng ba xam ñu ngi koy ñaanal daal soxlaa jaam bu mu dégg yàlla na yàlla faj soxla booli ak fu mu mën a nekk yàlla na yàlla xaar ko te hubbi ko barke bi yonent yàlla Muhammad man la sa na yaay Sanor Dramé xam naa xàmmee nga ma sax yaakaar yaakaar naa bu ma gisee dina ma xam sax yaakaar naa ne maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi sant nañ bu baax a baax a baax euh, kàddu yi am na solo lool ndax leeral na ñaar yoo xamante ni tax na nit ki war a dugg ci liggéey bi. Euh, Baye Sano leeral na ci wàllum produit yi ak booy jëfandikoo produit yi. xéewal yi nga xam ne moo la ci mën a fekk sa wàllu wér-gu-yaram te ni mu ko waxee itamit noonu la ndax loo xamante ni macha allah naturel la ñun du ñu ay docteur da ngay naan mu baax nga yaatal wax na ñaar yëpp itamit naan na ko baax na ci moom yaatal na ko te loolu mooy liggéey bi donc ndem ba nekk Saalum mën ngaa bay ba noppi di def liggéey bi mën ngaa nekk feneen aussi itamit di ko def kon liggéey bi amul lu ci metti produit bi aussi itamit soo ko jëlee diñ ci gis loo xamante ni macha allah amuñu droit nag ne dañuy faj parce que ñun duñu ay docteur waaye soo ko jëfandikoo ba noppi di nga xam ne produit moo la faj ndax histoire boobu ñu bëree bëree bëree bëri ak Forever jaar nañ foofu ndax lekk yu ñuy lekk dafa faible li mu waroon am ci naturel amatu ko saalum saalum yi sax léegi dañuy laal engrais chimique engrais boobu nag day yàqu suuf day yàqu jur loolu moo indi jafe-jafe bi boo xoolee am na feebar yu bëri yoo xam te nii boo jëmee ci côté sow bi wala côté saalum bëri na fa muy lu ñuy wax hépatite B te Forever itamit mu ngi jël ay produits yu baax di ko jox nit ñi ñu ciy jëfandikoo di defar seen yaram fii ñu nekk itamit wax dëgg yàlla nit ñi moo tax ñu leen di ñëw pour baaxee leen ko pour ñu mën a jëfandikoo produit pour mën a defar seen yaram ndax entreprise bii ñu leen di wax def na ñeen fukki at ak lu ëpp lu def na ñeen fukki at ak juróom mi ngi ci luy tolloog téeméeri at ak juróom benn fukk ëpp na ko waaw ëpp na lu ëpp dëkk bii toll waaw depuis 2002 ba léegi depuis 2002 ba léegi mi ngi Sénégal 1978 ba léegi mi ngi dox si àdduna bi yaakaar naa umpale ko nit ñi umpale nag moo tax moo tax tey jii bu ñu ñëwee dañuy leeral nit ñi baaxee leen comme ni ko Baye Sanoo defee wax dëgg yàlla ndax lii borom xol bu laab dëgg moo ko mën a def ah da ngay jëfandikoo mu baax nga yaatal bu dee ci commerce bi nga xam ne moom la ñuy def am na ñoo xamante ni xamuñu loolu lii laay jënde kaay jënde li may jënde loolu ñu bari duñ ko def waaw moo tax wax dëgg am na solo te kàddu yi yéene la itam ku dégg kàddoom yi xam ne yéene na ñi ñu am jàmm waaw dëgg yàlla yéene nit ñi ñu am bi mu ci daj wax dëgg yàlla pour am jàmm rek moom moo tax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di wax ak itam nga ñaanal ñu bu baax a baax ni ñu sose Touba fii bu ko defee mu mën a yaatu ba ñëpp mën cee jariñu incha allah kon nag ñu ñaanal bu baax sëñ bi jërëjëf.

seen info ci xibaaru màggal gi ba tey ñoo ñëwaat di waxtaan ak yéen bu baax a baax seen plateau di dalal suñu manager bu mag mag mag a boo xam te ni dafa bàyyi ko Dakar ñëw ba fii seet suñu ci bi nga xam ne moom la ñu amal fii mu ngi tudd soxna Mariama Sakho nekk ci réseau xeewal ñëw seet suñu ànd bi nga xam ne moom lañ liggéey ak yaatal gi nga xam ne moom lañ bëgg yaatal liggéey bi fii ci Touba kon soxna Mariama Sakho bu ñu doon nuyoo ba noppi ñu ngi lay dalal di la wax itamit dañu bëggoon nga nettali ñu tuuti sa histoire ak euh, Forever waaye sa histoire ak magal gi kon soxna Mariama bismillah aasubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala uh, maa ngi nuyu waa seen info yëpp waaye da nuyu waa réseau xewal di nuyu macha allah képp kuy doomu aadama ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullah ah uh, di sant yàlla bu baax macha allah ci ñëw gi ñëw tuubaa ci màggal gi di ñaanal suñu maam jooju si Ahmadou Bamba yàlla yokk ay leeram ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaye di ñaanal képp kuy xam ne ñëw na ci màggal gi rek yàlla na yàlla defar sa saaya defar sa baatin barke yonent bi salaam macha allah di wax ne tabaarakallaahu seen info seen taxawaay rafet na lool macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla ca kaw ca kanam ak lu baax yàlla yokk leen te defar seen mbir yëpp barke yonent bi alayhi sant yàlla bu baax nag ci ñëw gi ñëw Touba waaye di sant yàlla bu baax ak forever ñu àndat ba ñëw ndax mën nañoo wax ne tey forever moo tax ñu ñëw Touba ci màggal gi macha allah yàgg nañoo ñëw Touba nag ak forever waaye ren lañ doog a ñëw Touba ak ci màggal gi ak forever ba tey di sant yàlla bi ñu ñëwee Touba it jaar ci suñuy kër mbokk ñu am mbégte bu baax ci ñëw gi ñëw si ñoom kontaan ci lool macha allah ñu baaxe leen ci li ñu ne ñu am ci mbégte kontaante tey ñu jàll si fii ci euh, Daaru Xuddoos nga xam ne waare su xewal fi lañu nekk depuis àjjuma bële li leen fi tax a ñëw rek mooy partager ak nit ñi lu baax li nga xam ne xam nañ ko kon ak réseau xéwal forever ca kaw ca kanam ñu ngi ñaanal ñëpp point caisse yu bëri parrainage yu bëri client yu bëri yàlla buy rëccu luñ fi ñëwee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah di wax ne forever daal sëriñ bi ñu ngi ciy kontaan d'abord maa ngi tudd madame Cissé Mariama Sakho ñu may woowee caan Sakho maa ngi dugg forever depuis sant yàlla bu baax ci dugg gi ma ci dugg waaye di sant yàlla bu baax ci des gi ma ci des ba tey nekk di doxal Forever ba tey ndax yaakaar naa ne am na ñoo xam ne fekkoon naa leen fa te gisatuma leen am na ñoo xam ne tamit fekk nañ ma fa te gisatuma leen kon ndimbalal yàlla la bokk Forever des Forever continuer Forever loolu ndimbalal yàlla la ñu ngi ci sant yàlla bu baax sant suñuy jur waaye du sant suñu mag soxna maam Bousso Sakho mi nga xam ne moo ñu wan Forever macha allah ndax moom <clears throat> ñoo bokk lépp tabaarakallaahu bi mu bi 2010 keroog bi mu duggee Forever jóge jógee Forever ak ay produit am sama place la jaar ñëw wan ma produit yi wax ma li tax mu dugg ci lu jiitu muy dugg sax wax na ma li tax mu bëgg cee dugg ndax xamoon nañ ko ñun ñëpp muy histoire boo xam ne toujours day koy nettali day tax xol yi gën a tooy macha allah ndax kenn ci suñu njaboot amoon jafe ba mu métti woon lool ba ñu doon waajal pour génnee ko réew mi yàlla dimbale ko mu dajeek ku bokk Forever mu wan ko société bi ñu jot dugg ci société bi pour xale boobu ba mu ciy dugg xale bi moo tax mu dugg ci mu wan ñu ne nag bu buñ ci jëfandikoo ak xale bi li ñu ci wax su fekkee dëgg la ñun ñëpp dinañ ci dugg ndax su boobaa jihaat la jaamu yàlla la kon loolu moo ñu soob ci Forever Living Products ndax bi ñuy xam Forever comme ni ma koy waxee toujours soxna bu nekk boo nekkee sa bu sa benn néegu sëy yaakaar naa am nga li nga bëgg ndax jigéen euh, mag ñi dañu ne taaru jigéen mooy sëy kon ñun ñëpp ki fekkoon na ku nekk yaa sa biir néegu sëy alhamdulilah ñu ngi ci ba tey waaye fekkoon na ku nekk tamit yaa ngi yor sa place di yëngatu macha allah di eh, sant yàlla <clears throat> di mën a jàppale sa bopp ak sa njaboot waaye say mbokk ku ci nekk la ci sa wërsëg nekk macha allah bi yàlla dogalee nag mu andi produit yi wan ma ko dama ah lii de dugg naa ci mooy li ma la doon wax waaye su fekkee li ñu wax dëgg la ñun ñëpp dinañ ci dugg macha allah lañ ñu waxoon lañ ñu waxoon ci xale bi nekk dëgg nag moo tax ñun ñëpp ñu ñëw dugg ci macha allah kon loolu moo ñu dugal forever ñu ci duggee tamit sant nañ ci yàlla ndax gisuñu ci benn réccute ndax ñun ci suñu bopp amoon nañ jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko doon dund lu mel ni bopp buy yomb di métti lu mel ni angine muy wanaasu waaye lu mel ni tamit euh, dox ci naaj macha allah bu ñu ko defoon am jafe te tey bi ñu ñëwee depuis 11h la ñu génn ca kër ga boobu léegi ñu taxaw di waxtaan ak nit ñi di partager ak nit ñi ci naaj bi te yëguñu ko macha allah te loolu mënuñ ko woon. tey li nga xam ne mooy bopp buy métti boobu doon daan yomb lool tamit ak produit yi tax na léegi saafarawu bu baax a baax kon li ñuy wax daal mooy Forever daal damay wax ne ndimbalal yàlla la bu yàlla indi si ñun. ndimbal nag bu la ko yàlla joxee da koy jël macha allah jël ko jëriñu ci waaye wan ko ñeneen ñoom itam ñu jëriñu ci ndax mbir la moo xam ne damay wax ne amul lu ko mel ci àdduna ndax ñun dañoo juddu fekk suñu waajur nekk ci commerce kon mbiram jënd ak jaay moom am na lu luñ ci xam macha allah bi ñu demee ba xaw a màgg tuuti tamit ñu fekk si leen ci nekk ceeg ñoom waaye bi yàlla dimbalee nag bañ xam Forever gis ni Forever di doxee si wàllu njënd ak njaayam si wàllu partageem si wàllu yaatalam si wàllu jàppalanteem amut ci benn marchandise boo ko mën a amee macha allah ndax marchandise eh, société la boo xam ne wala marchandise la boo xam ne yow mi koy jaay yow moo lay jaay doo jaay loo xamut li nga koy jaay li ngay jaay da nga koy jëfandikoo xam lim la defal nga digle ko kooku jëfandikoo ko am ci njëriñ yow it nga am sa poos mu fees macha allah nga wan koo keneen moom itam mu ñëw soobu ci mbir mi ah <coughs> di ko jëfandikoo di ko wane di am ngay am kon mbir la moo xam ne dafay dimbali doomu aadama yi ci am-am bi yokku xam-xam bi yokk mën-mën bi yokk waaye jàmb ji yokk forever mooy société boo xam ne may wax ne no stress no stress mooy forever koo gis rek da ngay nekkaree mu ree macha allah loolu yombul ci liggéey yi bari na façon liggéeyukaay yoo xam ne ah ya fa nekk doy na waar te lañ ci yàlla musal ak forever moom loolu ump nañu macha allah kon daal ñun daal sant nañ gërëm nañ di woo ñëpp nag ñu ñëw ànd ak ñun ci forever di jëfandikoo produit yi di wér di ko yaatal di am xaalis di am tiyaabo waaye di am jàmm ak suñuy mbokk suñu xarit suñu am di jàmm ak képp ku ñu yàlla booleel salaamaaleykum wa rahmatullah ah macha allah macha allah soxna Mariama suñu manager bi vraiment alhamdulilah donc am na solo trop wax dëgg yàlla témoignage bi nga xam ne moom la def loolu nag day firndeel ne forever ñëpp mën nañ ko def ndax activité boo xam te ni danga naan sama mag moom ci dugal boo xam te ni da koy def ñëw ne ma dugal nem bu baaxee kon ñu ñëpp danañ ci dugg ki fi njëkk itamit gis ngeen li nga xam ne moom la wax donc kon liggéey la boo xam day firndeel nit ñi war nañ ci mën a dugg te yaakaar naa li mu it nekk jigéen nekk di sëy ba noppi itamit di liggéey yor sa place ba noppi mën koo booleeg forever mën cee réussir nekk manager ndax manager du n'importe qui wax dëgg yàlla loolu mbégte mu rëy rëy la kon yéen ñi nga xam ne yéen ñuy dégg kon ñu ngi leen di woo ci forever ngeen ñëw ñu liggéey ñu mën ko yaatal ñu mën a dimbali suñu bopp waaye ñu mën a dimbali ñeneen ndax dëkk yi nga xam ne moo ñu wër muy Séné muy euh, Gambie muy Mauritanie muy Mali ay dëkk la yoo xam ni dañ leen a boole ci Sénégal ak euh, Cap Vert te dëkk yooyu ñun ñoo ko war a liggéey kon Forever bu kenn wax ne diw dugg na ci mënuma cee dugg lii firnde la ci loolu ndax ni dugg na ci dugal ci rakkam dugal ci yaayam dugal ci papaam ñëpp ñuy doxal te kenn mënul yàqal moroomam dara kon yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci Forever macha allah kon seen info ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci xibaar yi nga xam ne moom ngeen amaloon fii ci màggal gi vraiment seen liggéey rafet na trop trop trop trop kon ngeen jëf macha allah jërëjëf. bi ma duggee si Forever nag yaagul suñu tata Mame bu Sow moom moo ñu dugal si Forever bëgg ñoo xamal njariñ bi si nekk ak lépp daal maanaam mais dañoo nekk fii si Touba Darou Khoudoss pour def benn exposition bëgg Sénégal yëpp xam la mooy njariñu Forever daal ak koom-koom bi si nekk ak lépp franchement boo si jaayee si produit yi di si gis sa bopp xam nga ak jeunesse bi comme man. si jeunesse bi laa bokk ak jeunesse bi gars yi nga xam dañuy jël gaal bi affaire yooyu noonu euh, bu ñu kiiwee xaalis boobu noonu ñu yóbbu si gaal mun na ñëw adhéré si Forever mën a jël si produit yi di si jaayaat day am na njariñ daal. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa seen Info leen remercier si interview bi si occasion bu ñu ma may pour ma mën a exprimer wu si Forever. parce que bon Forever entreprise la boo xamante ni tey jii nii mën na dimbali jeunes yu bëri surtout les jeunes quoi loolu moo tax sama jël parole pour wax si parce que actuellement soo xoolee dëkk bi metti na quoi tu te jeunes yi instant bi ñu si bëri xamuñu fan lañ jëm amuñu aussi ku leen teg si yoon pour expliquer leen yenn business yi naka la ñuy mën a def pour bokk ci. léegi entreprise bi ay mag ay mag ñoo ngi fi quoi ay mag ñu leen di woowee ay manager parce que niveau boobu moo gën a kawe quoi si forêt bi te ñoom yàlla defalal na leen macha allah quoi nekk nañ si liggéey bi ba yàlla defal leen ñu réaliser si lu bëri am si ay oto am si ay kër xam am si aussi ay compte bancaire yoo xamante ni macha allah quoi tey jii fu ñu demande visa dañ leen di may parce que économiquement ils sont bien stables quoi donc comme comme mag yi ñoo mën loolu donc ñun jeunes yi war nañ mën lu ko raw quoi. asalaamaaleykum wa di rafetlu aussi bu baax a baax seen teewaay fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké avec l' entreprise américaine internationale Forever Living Product di sant ak ngërëm euh, Aminata ma madame Sane mi nga xamante ni moom ma dugal Forever di sant aussi suñu maam booy di maam Bousso Sakho mi nga xamante ne aussi moo ñu moo leen ko xamal ba tax aussi ñoom ñu xamal ñu ko di leen euh, ñaax yéen ñëpp di ñaax sama bopp ñu gën a góorgóorlu ci euh, entreprise bi parce que entreprise bu am solo la boo xamante ne ni ah, di nga ci am sa koom di aussi lépp loo xamante ni mooy jàngoro yaram buy sonal doomu aadama aussi tamit taxaw na aussi ngir saafara ko ah mu nekk loo xamante ni képp ku nekk aussi liggéey boo mën di liggéey aussi mën nga ko boole ak moom ci aussi oos moom mbokk et étudiants yi ak la toute la jeunesse euh, ñu ñëw nekk ci Forever liggéey si euh, am seen koom-koom jàppale seen bopp jàppale seen i waajur euh, yàlla aussi mën na leen dogal mën na dogal ba ñu am ci li nga xamante ni les la ci suñu animateurs yi am muy si muy si ay ay terrain ak ay voyage lépp mën nañ ko ci am. voilà gannaaw loolu aussi tamit euh, di wax aussi sama jaajaar ak euh, forever parce que man aussi dama amoon allergie allergie euh, des fois ma fii parfois mu mu def benn gonflement ku ma gis yaakaar ne dama am bëñ bu métti wala dara fekk na allergie la moo ma doon sonal léegi su ma demee hôpital ñu may bindal ay médicament su ma ko jëlee quelque temps mu arrêté mais quelque temps aussi mu ñëwaat mais yàlla dogal aussi bi ma xamee forever ma expliqué leen ko. ñu jox ma euh, Zincia bi ak euh, polem bi wax dëgg yàlla ba ma ko utilisé depuis booba léegi ça fait cinq ans gisuma benn allégeance sama yaram kon loolu aussi tamit lu am am solo te aussi man man ni sama yaay aussi dafa amoon aussi problème tànk ba mu utilisé produit bi Forever yi wax dëgg yàlla bi macha allah am am am gis na si tan tan di leen si oo yéen ñëpp nag képp koo xamante nii tamit am na looy métti sa yaram soo demee consultation médecin soo ñëwee boo boo expliqué waa mooy sa métti dañ la tegtal war na produit yi nga xamante ne moom ngay utiliser te incha allah rabi su yàlla àndee métit boobu noonu doo ko dinañ daal xaw naa yàgg nag ànd naa nag maam Bousso fu nekk ànd nañ dem voyage fu nekk dem liggéey macha allah muy sama mag bu nangoo liggéey ko ànd moom macha allah ci kanam rek nga jëm di ko ñaanal nag mu nekk manager Safir incha allah yàlla na ko yàlla may jàmm may ko wér ak wér ci barke Seydina produit yi nag maa sama mbokk yi ku nekk mun nga koo def góor jigéen mag ndaw mun ku nekk mun ngaa def liggéey bi ku jàng ku jàngul ñëpp mun nañ cee bokk macha allah bandiraaɓe mi calminii on min njuurimaa on min mbiya on produit aloe vera ɗi no moƴƴi ha machallah oɗon noddee heen daal debbo e mawro cukalel fof no wawi waɗde ɗum ko produit naturel ala goto effet secondaire ma gui tudd aminata seck madame sané dugg forever en 2012 uh, machallah di ci woo sama mbokk jigéen ñëpp d'après sama naataango yi niñ ko waxee machallah forever lépp luy teraanga doomu aadama rek mi ngi fi wàllu wérgu yaram mi ngi fi wàllu koom-koom mi ngi fi macha allah am na fu ma jaar nag ak Forever bu baax a baax a baax sama taxawaay bu yàgg bi ma amoon tële am doom macha allah ci Forever laa ko faju ba tey maa ngi sant sunu borom. bu Njombe saaf ku Bukana ku Mbom ku Tiyom ku Joola ku Niinom ku Joola Njombe saafu Njombe wonku pop Forever Living Products compagnie américaine a jawla baabe di des yololi e eh, ɓuuro eh, eh, ka booba baaɓe e kakila kasete bare foki ragal wattit inchallah ɓuɓe ɓen kugarlo baaɓe ɓuɓe ɓen kanu manje ka jake ɓuuro ka boobu to kati kujola kujamata pe jijo manu rokal e ɓuɓeɓe na boɓe baaɓe ɓuuro ka ba jake ɓanu haaja yeya panuŋoolenu kuumen dimbayiya panuŋoolenu sonten famille burom e jombede wonki aminata sek madame sané manager forever living products merci beaucoup ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di gërëm waa seen info bu baax a baax macha allah seen liggéey rafet na ci màggalu Tuuba ak forever living products macha allah ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ngërëm boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem macha allah forêt ba nag day jariñ xale di jariñ mag ndax gis ngeen ma nii man ab maam laa waaye maa ngi fii di fi liggéey di fi gis sama njariñ macha allah da ngay fayaku ba noppi di jaay di gañe kon xale yi li ñu wax am na solo xale yi li wax am na solo lool ndax xale yi di jaar di dem si gaal yi di jaaxal seeni jur war nañoo mën a toog ñëw fii li ñuy yóbbu ci gaal yi ñu ñëw def ko fii ci Forever te def leen di jariñ rek incha allah ndax ay oto mu ngi ci ay kër mu ngi ci lépp mën nga ko am te loolu rek moo tax doomu aadamay tukki macha allah di gërëm maam bu sa saaxo bu baax a baax macha allah mooy sama yaay. Euh, maa ngi dugg Forever depuis octobre 2022 defe naa léegi ma def fi un an man na sama jaar-jaar Forever laa leen di xaw a may tuuti ndax man may dugg Forever man salarié laa woon soutien de famille en même temps yaa bi ñu ma koy wax yàgg na mais bi ñu may wax comme tous les autres sénégalais rek su mënusuma gëm dama doon wax ne affaire bi ay dañu ñëw rek lekk sa xaalis ak yooyu mais yàlla def nag ma taseex sama benn mag bu ñuy wax Mam Bousso mu taseel sama yaay moom mu dugal ci Forever ndax Forever boo ci duggee yaayam papa ngay wax donc ci biir Forever fii Mam Bousso mooy sama yaay moom mu ci dugal moo ma won yoon bi tette ma ba tey nii ma nekk ci grade animatrice macha allah mu may tette di ma won yoon bi ba ma xam Forever nu muy demee léegi nag crainte ma ci doon am yépp bu ma waxee dëgg fu mu toll nii amatuma ko parce que maa ngi sant yàlla lu baax. daanaka sax liggéey bi ma doon liggéey sax arrêté naa ko fu mu toll nii Forever kese laa def à temps plein moom kese laay def boolewuma ci leen di sant yàlla nag waa jàngalekat laa woon waa jàngalekat def naa 10 ans ci école yi 10 ans avec un CDI waaw CDI laa am ci biir école yi léegi nag ba ma gisee boo seetoo boo nekkee salaire yi li ñu lay fay tamit nga yoon njaboot ak yëpp. yow sama caat bu ndaw bi di doxantoox moom di jàkk yéeg di wàcc mu metti lool ba ma gisee foore ba gis revenu bi ma ko doon am maa ngi am plus ma ne ah kon nag ba mu école yeeg élèves yi moom naa ko bàyyi continuer foore ba directement looloo ma dugal foore ba. salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum waa leen di nuyu di leen ziar voilà di leen jaajëfal ci liggéey bi xam naa d'abord dañuy présenté wu ñu ngi tudd Madiop Mbaye. Euh, Euh, bokk ci membre Forever Living Paradise depuis euh, un an xam naa comme niñ ko waxee rek comme ni ko ñëpp waxee parce que Forever Living nekk na société boo xamante ni si ñu ngi jàppale nit ñi ci cadre entrepreneuriat ci cadre euh, libre entreprise mu nekk société bu bëri avantage man fi may accenté wu si jeunesse bi laay waxee parce que gis nañ ni ak fi jamono tool ak euh, jeunesse bi ni ñuy xiitaloo surtout ci cadre euh, clandestine bi voyage clandestine xam ni peut-être euh, désespoir ci réew mais ñu ñu jàpp ni espoir mi ngi fi ba léegi parce que avec Forever tout est possible lépp lu ñuy wuti feneen ku taxaw liggéey ak Forever mën nañ koom kon dama leen di invité ñu rejoindre groupe Forever ñëw. ci liggéey bi nekk euh, partenaire seen rêve ñu réaliser ko. yéen waa Sénégal ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di leen di jaajëfal si ay màggal gi wax dëgg fa yàlla ndax xam naa ne sonn ngeen lool waaye nag ñun dañ fi ñëwoon ak Forever si màggal gi macha allah ñun nag si euh, wàllu transport la ñuy yëngu. yàlla dogal na wax dëgg yàlla ay taximan leen doon di sax si minicar leen njëkkee ndax boo demee Kaolack foofu leen yoroon minicar doon def transport yàlla dogal nag ñu amoon benn feebar boo xam ne muy bëñ mu sonal la ñu lool. sama mag nag jëloon ma si pad yi mi waa aloe vera waa Forever yónnee ma si benn pad ma utiliser ko gis njëriñ li yàlla dogal nag bi ma bayee minicar yi ma dugg Dakar nekk si taxi mi di def Forever tey nag yàlla dogal na banaa taxi mi lépp maa ngi si Forever fu mu toll nii ndax wax dëgg fa yàlla gis naa si loo xam ne képp ku si jàpp rek da nga si gis loo xam ne mën nga si defar sa bopp dimbali sa njaboot nekk na loo xam ne wax dëgg fa yàlla bu ñuy toog di ko expliquer nit ñi dag naan lii mënut a nekk mais lépp li ñu leen wax rek lu ko raw ngi ci biir loolu nag moo ñu fi ba fu mu toll fa yàlla man maa leen yóbbu fu ñuy dem wëlbatiku yore samay taxi joxe ko nekk si fóore woon nag bàyyi naa moom taxi bi moom fu mu toll maa ngi si fóore woon macha allah.